ñu bàyyi nga nuyu mbokk waaw ginnaaw ñu sant yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur di sant képp koo xam ne yaa ngi fi teew tey pour bëgg Fils de Sam Sam rek di la gërëm di la ziar di sant suma coach ak waa équipe bi Jalle Birama Coor bi sant kilifa diinay kilifa aaday maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Fils de nga nga gëjee gis hmm. rek nekk suma ruq ànd suma ko si yoro ñu nekk di liggéey lu baax lu dooy waar tamit di waajal. ngay waajal waaw waajal sama combat ak Mama Lamine 2. jël Mama Lamine xam nga Mama Lamine à 100% xam ko rek. waaw ànd seeg sama coach tamit mu nangu mu nangul ma combat bi ma jël Mama Lamine du dara tamit. nee naa la xamul làmb rek laa xam mais su duggee waa man ak moom ku nekk dina xam moromam. pardon ba. si diggéew bi man ak moom. Ah. ku nekk dina xam moromam ndax man moom kese fay des. ndax soo xoolee Mama Lamine. Mhm. dafa nekk xale boo xam ne dafa naqari wutul adversaire. dëgg mhm. moom avance bi bu duggoon fii digganteem booy suusu. Mhm. moo xam nu mu demee. mu yàqu. nee na nag yow yëpp di nga ko yëpp ba jël ko <laughs> bu ko wax lan la. Maama Lamine du question yëpp sax làmba ñu boole rek ñu war a bëre mu def ay jéego ma def ay jéego làmb boole ñu war a bëre mais du question yëpp te man sama yoon neexul man ak Maama Lamine sax ñàkk adversaire moom moo tax ma jël Maama Lamine waaw période bi ñu toll nii man ak moom la mais du cadre làmb nee naa ñàkk moo tax ma jël Maama Lamine la waxoon si omre laa lay waxaat si Maama Lamine <laughs> man neuf point sax boole ma ak Maama Lamine barke sëñ Bamba waaw waaw trois victoire du dara man defaguma dara ah. kon fi ñu toll nii lépp mooy leen boole. ah doo moom la dafa guma dara amaguma dara waaw. nee na ñi nga doon bëreel ñëpp. Mhm. moom bokkul. ñooñu da nga leen ëppoon doole. parce mhm. que ndeer la woon moom ak ñoom duñ benn. duñ tur moom Mama Lamine la tudd ñeneen ñu tudd ay confiance waaw. ñeneen li si ñooñu. Mhm. du su moom waaw moom. du su moom mais su di géej. bëre moo la ko dàq. bu loo indi di ko di ko fa ku dàq bëre ku dàq xeex yàlla na la yàlla may ndam. ku daax a bëre ku daax xeex yàlla na la yàlla may ndam. loolu loo wax la loo gëm la. barki Serigne Saliou mu ma yaakaar laa ku daax a bëre ku daax xeex yàlla na la yàlla may ndam. mais fii sa Samsam ni wala sa mafia seen xel nii. non non du loolu sax yow seeraat nga samay trois combats man su ma jàppee rek day jeex. moom tam trois combats bu jàppee day jeex. barki sëñ Bam moom day défendre moom contre kele la mën na def mu mu asone. Ah. te man barki sëñ Bam su ma su ma ko jàppee contre kele du am nee na jàpp boobu ngay wax fa yegg nag da lay dóor nga daanu. ma daanu <laughs> yebee mu noonu samay mbokk rek di taxaw maama la nu ma dóor boo bëree moom dalay baax na bañ yegg ba jour ba dinañ xam ne ba xam la dina ma dóor ma daanu wala ma dinaa ko dóor mu daanu. ñi nga daan jël ak moom lu mu la wax sànq laa la wax. moo tax mu jël li ngay nekk ci TikTok bi groupe WhatsApp barke sëñ Ba mosuma taxaw fenn tëkku maama Lamine mosuma taxaw fenn tëkku jox leen ma maama Lamine dañ ma woo téléphone na ma sa combat ak maama Lamine ma ne leen su fanaanee su moom la fanaane moom la. su moom dafa am loo ko dencaloon wala. non dencal moo ko dara damaa xam ne nekk ndaw ma nekk ndaw ñu bokk yoon laamu booloo ñu moo tax ñu war a bëre. ngeen nekk ñaari espoir yoo xam ne boo jugee li nga delloo sam lépp dañu jóg topp la. barke sëñ Bamba jaxaay da jóg topp ko. noo la demee nag mhm. est-ce que di ngeen samp jaaga yéen ñaar. waaye yow ñuy samp jaabo bu mag. non sam-sam ku dar cuune. tey laa la koy wax nag sam-sam duñ dar mbër bu cuune jàmbaar ak bañkat la ñuy dar moom maama la mi day xaar billaa wallaahi tallaahi su arbitre sifflé man ak moom si diggéey dina xam ne day xaar lu leer laa la wax day xaar li ngay wax nii lu ma liggéey la nee naa sama yoon man liggéey ma pour maama la mi dama liggéey pour mbër yi nekk si kaw li ngay liggéey pour moom lu ma la waxoon si am na laa la wax du man moom du man ak nga fi moom lu waay di wax rek VAR dafa am moo tax. VAR dafa am te dañ ko wane waat. lépp yow la luy lëndëm ku ñëw si yow mu leer. <laughs> fi mu toll nii. Mhm. mu def 3 combats 3 victoires. Mhm. nga def 3 combats 3 victoires. Mhm. ngeen war a wàcc si nag fi mu toll nii ñaar. waaw xool kan mooy marqué 4 victoires. 4 mooy marqué 4 victoires. <laughs> ah doo woon wax Mama Lamine du pousse du passe du toloone. Mama Lamine. du pousse du passe du toloone. fan nga wékk loolu. fu leer laa ko wékk. si lépp si lépp lépp loo xalaat mbir dina ko pare rek man pare naa ko pour maama Lamine. moom nee ñaar nga si am. Uh-huh. wax fecc mu ne man sax du ma fecc. nee na loolu la ko am fecc du fecc de. moom moo bëgg ambiance. mais man du ma ambiance man sama ambiance si digg géew bi la. léegi chaque jour ñaar séance ngay damay def trois séances damay xëy dem géej su ma ñëwee dem saal ñëw si équipe bi ko su teg ma lu métti. ñu nangu ko tamit ndax ñu ñun ñoo soxla. ngeen nekk ñaari xale. Uh-huh. promoteur bi xale. Mm-hmm. mën ko waxee reporter di waaw bu ba. Mm-hmm. lan la ñuy xaar si yéen ñaar ñëpp. lépp loo leen bëgg lu neex rek soo leen su combat ma ak Mama Lamine di ngeen ko fa fekk. séntu nañ combat bi gën a neex grand la man moom mooy grand combat ñe dañ leen a monté rek mais man ak Mama Lamine mooy grand combat bi. si lan loolu moo tax nga ne yéen ñaari grand maa xam ne daanoogul man daanooguma. te def na ay jéego def na ay preuve ma def ay preuve. waaw te ñee dégg nañ ay muñal déggagul muñal déggaguma muñal moo tax ma ne làmb ju nar a neex képp ku bëgg a seetaan làmb ju nar a neex rek soo ñëwee sama combat maa maa mën a amee doo ko raté. su ma déggee sax combat bi day mm. man benn jooy lañ benn benn jooy. man man maa tudd benn jooy. damay jàpp rek mu jeex. est-ce que Mama Lamine ku ñuy jàpp rek mu jeex la. Mm. ku dul Mama Lamine sax su ma ko jàppee day jeex. ku dul Mama doo jàpp su ma ko jàppee day jeex man na droit bi jàpp rek. góos moom waxaale ma ko lan maa la maa mun a xanaa mu génn saako yi. moom moom nee na moom lamb ji lépp lool ci biir géew gi bu arbitre sifflé lépp lu fay nekk moo koy def. moo koy def ba jour ba incha allah rabi. si bëre si lépp moo koy def. ba jour ba incha allah rabi xam ne maam Lamine dina bëre wala dina xeex bu arbitre sifflé ba romb suñu diggante man ak moom ba ma def lu ma war a def fu mu ko fekk laalax day toog. bu ma dóor ko. bu bëree ma colal ko. ma dóor ko. bu ma colal ko. est que colal bi maam la wala ma ko sax wala ma konko laa la wax maa ko sut xaa dewum la maa ma la fu mu ko wax jaaral fa lay jaar mo mm, su ma ràccee du toolog man mm, fu leer laa ko wékk su ma taxee maama lamin tax yow doo gis maama lamin man su ma taxee maama doo ko gis mm, dinaa ko gis ndax maa moom ñooy bëri mais su ma taxawee yow mi di rapport di nga xam ne carrément maa gën a pare maama lamin pourquoi nga ne yaa a pare maa ko gën pare si lépp liggéey ànd dara day soob rek moom mbëru TikTok la comme ni ma doon wax yeneen mbëri moom mbëru TikTok TikTok bi lay nekk di vidéo ak lu nekk mu def ko man melu ma noonu man ku ma bëgg a gis rek man may xaar bu arbitre sifflé. bu arbitre sifflé waaw ku ma bëgg gis ku bëgg gis Fils de Sam Sam dëgg-dëgg arbitre sifflé nga kay xaar. fi ñu toll nii. si mhm. waaw. ku ne mbër mu ndaw na jàppale. waaw est-ce que autorité ñu ngi lay gëstu moom jooy nañ ko nag jooy nañ ko trop ñooy ñaan gars yi ñëw jàpp si bu baax a baax waaw loolu laa jooy bu baax man dama koy gën a jooy sax ndax des na ko quoi man maa nekk seul mbër bi bëre sam-sam du ma yóbbu kaar te booy dañuy dox ba estaat. seul du ma yóbbu kaar te booy dañuy dox ba estaat. ana autorité yi dëkk fii. looloo ma jaaxal gisuma kenn. est que def ngeen démarche dem seeti leen. fu ne dem nañ fa mais ba tey des na mais ñoo ngi ñaan yàlla combat bi ñëpp génn gis seen bopp meññ ay kaar gone mun a dem stade ndax tout temps yi dañuy dox ba stade aller retour ngir kan Fils de Sam Sam Moro su ma duggee si digg yooyu dama wane ñàkk jom ah gars yi jënd nañ jënd nañ quatre blocs en attendant waaw gars yi jënd nañ quatre blocs cinq non day xaar day sóob rek laajul dara. dafa am question boo xam ne damay faral di ko laaj mbër dinaa mbër danañ ànd ay ay nit. Mhm. ba caabi féete leen waaw waaw. la plupart du ma dégg mbër toog di nemmee sama nekk si waaw du ma wax lu loolu. waaw loolu am na loolu jar naa baaxel ndax man koo xam ne dafa bokk su man deret bi daw su man mooy daw su moom moo nàmp jox ma caabi da ko féete ginnaaw jooy naa loolu trop nag ndax manqué na ma trop trop trop trop ak ñeneen ñoo xam ne ñooy dëkk si biir koñ bi dëkk si biir gox bi ak ñoo xam ne xaw ma leen maa ngi ñaanal suñu borom dellusiwaat leen ñu dellu seen mbokk delluwaat seen activité nekk su luñ nekkoon. soo gisee question ma laaj la ko. Mhm. damay damay dem si biir di leen seet si biir. waaw ñu naan laa doon supporté. dëgg la bi ma nekkee ba léegi mosu fee ñëw. mosu fee ñëw waaw loolu am na am na ñoo xam ne dañuy fàtte demb waaw te démb lu jar a sóoraale la man nag dama fay dox di leen seet di xam su luñ nekk ndax lu mu bon bon rek comme gone nu ñu toogee man doon nañ ko toogee man dama conseil moo tax maa ngi leen di ñaanal yàlla bu dara tëwul. ñaanal leen ñu dellu si waat seen activité nekk su ñu nekkoon. say ñaari naataangoo nekk foofu. ñu mhm. waaw bébé Kaaw Cissé. waaw métti na trop ndax ku lan xamoon xamoon ne ay jàmbaar lañ nekkoon si làmb def seen jéego def seen jalooro ñëpp xam leen si làmb mais yàlla ak dogalam jaam ak pexem mu demee nii mais maa ngi leen ñaanal fu ñu nekk ñu dellu si waat nekkaat seen activité ndax loolu la ñëpp di ñaan quoi. dernière est-ce que Fils de mën naa nekk si biir enceinte bi. Mhm. bëgg di wax ak ay supporters am si kaw. supporters si kaw kenn mënu wax ñoom. waaw léegi te foofu tamit bëgg na nga laajte message ndax supporter si kaw. Mhm. mbooloo moo ko indi. mbooloo moo ko indi. am ñoo xam ne tamit yàq moo leen indi. yàq moo leen indi. tey yow mënoo nekk si suuf. Mhm. bëgg a nekk si kaw. lu lu dal supporter bi si kaw. ñu ne ko si kaw mi. sanctionné comme li si dal seen naataango Liss Ndiago. waaw Liss trois ans un an. waaw deux ans sursis at yooyu alamaan non loolu dafa non dafa métti trop ndax mënul nekk nu ko nu ko giri waxee mënoo gitaar di waxatu mun ta ne mbër mënu nekk sentik bi naan day xool supporter bu nekk si kaw moo tax CNG war nañ see bàyyi xel bu baax a baax supporter ay supporter lañ rek tey mun naa bëre kii jugee Géejawaay kii jugee Pikine fii sa Samsam moo leen ne mais man xaw ma leen gars yi war nañoo bàyyi xel bu baax a baax su loolu noonu te xam ne mbër bëre rek la am mais supporter yi ñun mënuñu leen a téye lu ñu def si kaw ndax ñu si diggéew bi la ñuy xaar quoi xaar ñun si kaw supporter yi soo gisee ma laaj loolu. Hmm. message boo xam ne pour mbër yu ndaw yëpp la. waaw mbër yu ndaw yëpp la waaw. ndax soo xasee aj benn mbër mu ndaw. Hmm. yàgg yàgg kii mbër mu ndaw moomu. Hmm. ñooñu. kii. ñooy toppaat kii waaw ngeen lancé la demee nag damay ñaanal suba teel rek ñu bàyyi loolu xel bu baax a baax te xam ne sa mbër moom su la taxee jóg rek defal loo xam ne loolu moo la tax a jóg soo si pare pare nga si ndax lee ñu yàq ñu ñoo ko moom ñu ñoo ko bokk te foofu la ñuy suturoo te nit ki ñaan na yàlla fu ngay suturoo kenn bañ la xaa yaaxal ñoo ngi ñaan yàlla ñu bàyyi xel bu baax a baax te xam ne tamit ñun bëre lañ am quoi moom lañu yaakaar mooy suñu métier kon gars yi war nañoo see mën a jàppale bu baax a baax xool nan la doxalee quoi mais mbër daal mënul bëre naan day contrôler supporter mënu ko moom wax dëgg yàlla nag. lan ngay wax promoteur muy xale. waaw Cemek maa ngi koy sant bu baax di gërëm ndax jàmbaar la Moru Parcelle ñooñu ñoo ay borom baax lañ ndax dañoo monté combat yi am solo rawatina sama combat ak Maama Lamine dañ ko monté ba pare te xamuñu combat buñ monté mais su jour ba la nga xam combat bi monté mooy ban combat. léegi ngay tàggatoo sa kàddu gi lan ngay yóbbante Mama Lamine. waaw ndax ñoo ngi def jéego doy waar ndax ñëpp a siy teg seen bët di wax askan bi nañ ko bàyyi xel rek di ko seedaan waaw Mama Lamine daal aw ma dara lu ko wax lu dul mooy jour ba mu def lu mu war a def ñëw daanu dem ñibbiwaat di gërëm nag ñëpp di sant ñëpp ku su mel ne ñoom Kalaama ñoom Moussa ñam Baaxar ñoo xam ne ñoom dañuy jàpp te yàlla tax séntu wuñ si man dërëm ñoom Amady. waaw sama mbokku seeraas yi waa Casamance sama dëkk Mampalaawu waa Bignona waa Ziguinchor Kafountine waa Diouroumaane ñëpp maa ngi leen di gërëm waa Bëlenkin Selenkin ñëpp maa ngi leen ziar baax a baax di leen wax combat bi seen combat la ñoom ñoo si war a mën a jàpp bu baax a baax ndax fii du sama place Mama Lamine du man ak moom làmb moo tax ma bëre moom mais du man ak moom maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di ko saako su ñëpp bu jour baa yàlla may ma ndam si kaw Mama Lamine